diggante ci réew Saalum ak Sénégal te xalaat ba taal maîtrisé ko xalaat bi xalaat bi xalaat bi ba tax donc bu ñu wëlee sama ak Ousmane Sonko li tax ma ne pour pour wari la pour pouvoir mais dañ dañ ko dañ ko traité et le choix ne doit pas se faire par d'autres partis parce que foofu lañ nekkoon ci choix dafa trop yàgg di ñëw il doit soutenir c'est-à-dire faut pas ignorer une certaine perfection à l'opinion. Parce que moi, je rigole. Nous créons un cadre comme Dieu le fait. Comme vous critiquez, la commission euh, d'agriculture, Alexis, président la conférence 2002, responsable. Parce que vous n'êtes pas avec nous. Donc, on est sécurisé. ñoom ci programme te ñoom ñoo ko mujj a déglu ñoo la leen école ñu ci yoon bi ñu nekk ci biir ñoom contrat bi léegi bu ñu demee ñu ay présidentiel pour la délégation les cadres de parti diminuer les candidats en dehors de parti mais est-ce que nit ñi ñu xalaat ni parce que am na ay compétences pour diriger pour diriger il faut que dirige quelque chose quand même parce que ñoom la askan bi jox bopp c'est pas des choses yéen askan joxe ko et pourquoi il ne pas être et s'il sont pas devant c'est un très mauvais message qui vont envoyer aux Sénégalais bu ñu si tegee bu ñu si tegee parti bu dee ñu wut éli par exemple cyangwa kuyakandamo umugozi ndetse n'agakotayi saa yita pakiri cyangwa se n'agahanda abantu bakakira batora noneho umukozi wo mu kuboko akaba agaseswa bakuru cyangwa kugira ngo yere akagira agakosa amafaranga y'ubururu y'igihugu kumfunda ikigina sekirere na kopa abisi mu kuboko kw'ijuru ndege hapo ndo akilivulia hivyo vinapenda kususia kuhusiana mitakapo kuanza kupata kile kwamba tunaweza kuweza na kumsonga akisema na kumsonga kumsonga akisema ile kuweza na kumsonga kile ni mwili mobile kusimama kwa kato kwa Bunu kabul edildi. Altın diskresyon yow maa ngi lay def mais moom moo ko mujjee alors que boo defee monsieur Patrice Ousmane Sonko bu la benn conférence de leaders ak une position tranchée dafa amoon tànkeef Khalifa Sall ak ay dëmbul parce que ko ay dëmbul loolu je devais dire non c'est lui qui nous reste ba ñu ko may lu mu d'accord dañuy d'accord parce que luletewa mujiri anafaluka ipasaidie kundi de kufa no coração certo prema so se ne puoi scuotere la cosa che il pubblico ti avrebbe fatto come una chiusa

mouvement cette forme, accompagné par la participation des combattants, avec les caractéristiques de mouvement citoyen. Parce que 90% des membres de partis n'ont jamais fait de politique. Non, citoyen que le niveau de que politicien. Avec les plutôt que le politicien est mieux réglé. Ou en tout cas, pas le salon de la pourquoi ne pas nous impliquer pour redresser la balance ñoom ñu la passé ñoom ñu perte ci politique moo tax ñu jiital valeur ak éthique alors que au Sénégal politique éthique ak valeur daf ci pouvoir bi loolu moo tax aussi ñu accordé trop de confiance à leurs amis et partenaires parce que dañ jàppe ñëpp ñu seen bopp parce que nit ki en général dina mel moom ngay jàppe yo mu Thank you. Jesus tiene globales. Vamos, no me puedo venir.

melon. It's a new guy belirlenen yani guvernöme ayrılan günler guvernöme genel elektrik muhabbet. Bir kutinle mınlık ve sonlu gerçekten etkileyince bu genel muhabbet kırıklar. Yetkiler beraber peki. Ama bakın yani yatırım istatistik bu ko def lépp ko ci def loolu moo tax ak yéen ko ci mais boo ci loolu ko ci ma ko xel ko lay def nekk ñu taxaw ko def doole gi leen jox ko ko xeere ba réel réel réel ko ci réel da ngay analyser xaalis kii sama xel d' accord mais man lii mooy sama intérêt mais da ko jëlee lii lay comme des humains. Parce que c'est toute la de bataille. C'est l'objectif de, de 90. Wajibiko. Neno lipo litukale. Mwelekezo. Mwelekezo importante mwa dans le monde. Bien que nous n'avons pas de plaisir à quelques enquêtes qui paraissent comme l'union que les malades Donc, ils m'ont fait connaître pour les plaisirs qui peuvent s'en loolu moo am ci de tout qui a à faire qui a rapport avec la gestion de de la gestion de le foncier de foncier bi c'est beaucoup de donc loolu day jëlaat ci pouvoir moo tax war na am constatation li nga war de foncier bi mais c'est ça mais léegi li nga xam mooy application